waxtaan ak ñoom. dëgg la ah. moo a ñëpp ñoo for benn tàkku sànni day jeex. dëgg la te tamit. mooy naw la leen. dëgg la muy policiers yi. waaw ñoo leen war a jàppale ci liggéeyam. lii nii man bëgguma ko parce que man lim leen indi waxtaan na ak ñoom ba pare parce que après lu si xew après si ñun la dal ñun mm. ñi nga xamante ne ñun ñoo jiite affaire yi mm. si ñun la ñu dal te ñun xuloowul ñoo mm. man li may doon xeex xeex naa ko si jamono ñoom ah, baax li ma doon xeex mm-hmm. xeex naa ko si jamono ñoom ëmma mm-hmm. seen kon tey sama rakk yi tey ñoom laa indi ñu dal ñu nekk si jàmm comprendre nga est-ce que xam nga signature moo ñu fi indi làmb ji le premier mi Mm. mais Pape tey gis nañu Boy Niang nu mu ñëwee ñëw bu déwénal premier signature bi. Mm. Balla Gaye am na lu wax ak moom Balla Gaye di teg Boy Niang di mm. ko a xaw tey. jërëjëf ngeen dem ko defal léegi. jërëjëf Seydou. Eh, yéen a xam yéen a jéggi a yor booy Pikine yi. comme ni ko waxee léegi. ngeen calmer leen que conscience de dañuy fo kaf ree après mu jeex yow nag da bëgg nga lancer non xam nga avant avant ko mooy ne tey tey ñii nii suñuy nawle lañu quoi parce que tey tenue bi lañu sol parce que tamit ah yombalal liggéey bi parce que man loolu laa waxtaan ak suñu rakk yi suñ ko defee xayrun buñ ko si deful lépp lu leen fi arrivé tamit ñoom ñoo ko teg seen bopp man xulóowumaa kenn xeexuñoo kenn làmb jëm diggante Boy Niang la ak Balla Gaye loolu laay wax chaque jour nag loolu laay wax ñëpp gis nañu Tafatine bi muy bëreeg Boy Niang ci setu Tafatine laa sol ànd ak président supporter u Tafatine yéeg ci kaw jënd leen ay jus ñu naan yaa ngi may dégg gis parce que damay damay damay wootante ak Aziz Ndiaye appel vidéo Aziz Ndiaye su ma amee ku feebar Pikine day yëkkati ay millions ma yaa ngi may dégg gis jàppale ñu feebar Pikine muy andaw muy ñëpp yaa ngi may dégg que. dëgg la xam nga. Balla Gaye bu bëggee nag bu muy jënd. day gisanteeg baylaa. laa dem jëndali ko nag. Mhm. mais lii nag lamb la. lamb la yaa ngi may dégg que seet gis naa nag ku si nekk di ci wax. mais man du benn kàddu bu ñaaw. buñ buñ ma buñ ma ci xaar ci loolu. parce que du duñ ko gis ci man. macha allah du dëgg. am solo man parce que man tàkkoo saan bu metti bu nekk. dund nga ko dund naa ko ak Balla Gaye. a gis ci di nga ah. kagulu waa di nga def li kagul kagul woon <laughs> non suma xarit la ma koy nuyu waale bu baax doo doo kagul bi maa ngi koy xaar ba mu ñëw loolu xam nga sarmu làmb la ma koy wax suñu président Bira Sène maa ngi koy ñaan nga jéggal ñu nga bàyyi borom kagul bi ñëw bu kagulee nga kagul non du ma kagule lu tax loolu dara voilà comme ni nga gisee ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang arrivée moo nekk noonu ngeen gis bu Balla daal di duggee ba léegi après Boy Niang moo daal di ñëw ba léegi waaw dégg ngeen macha allah nuyu naa la ja jege si jege si su ko bëggee

Sénégal ñoo sonn Boy ñaar ñoo yëpp voilà ngeen gis ki nga xamante ne mooy Boy Niang Balla moo dugg nag dafay bagage parce que instant moom nee na du du du dugg fi nga xamante ne jàll fi nga xamante ne moom la. moom la Balla Gaye euh, jaar ngeen gis est-ce que bëggul ñu tijjil ko porte mag bi gis ngeen ba tey ñoo ngi nekk si dernier réglage yi parce que